Heavy Bass.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 haddeen indemnité yooyu nag toll na ci ñaar ba juróomi million yu ñu war a jëbbal kenn ku ne ci ñoom moo tax ba deuxième vice président bu association des anciens militaires invalides dal di génn yuuxu dellu si waat ci seen àq ak yelleef yooyu nañu nag revendication yooyu depuis 10 décembre ba léegi invalides yi ñu ngi xaar ñu jëfee ko ndax direction des relations publiques et armées di dir départ noo leen ko digoon nañu nag fi mu ne alerté nañu autorité compétente yépp waaye ba léegi gisaguñu dara tous ma ne association bi ñoo ngi réclamer ñaari million pour ñenn ñi juróomi million pour ñeneen ñi bokk na ci réclamation yi revalorisation seen pension yi ñu amit accès ci logement sociaux yi ak am ay place ci emploi yi ñu jagleel invalide yi ne ñu nag ñoom bi ñuy xeexal réew mi ku nekk yi ngi nekk ca la nga ñu dem taxaw joxe seen bakkan ba li leen dal fekk leen ci kon nag askan xam lu seeni revendication nekkul luy honoré réew ca dëgg-dëgg fi mu ne nee ñu seen boolu mu ñu kaay jeex na tàkk ndax dañoo ami njaboot te fi mu ne métti na lool lool ci ñoom moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi gën a garaaw korona laa wax la xew ca caaroy sur mer romb na doy waar ñetti xale la ñu fekk ci ab oto bu paan ñoom ñépp ñu ñàkk seen bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bu ñu naan sànc ba foofee ca caaroy sur mer ñetti xale yooyu nag nee ñu dañu leen yónni woon seen kër bàjjen ngir ñu añ ba ñu demee ñu toog toog gisuñu leen ñu daa di leen di wër di leen wër di leen wër waaye fi ñu feeñee moo mujj doy waar ndax dañu leen fekk ci ab bu paan ñoom ñett ñépp ñu ñàkk seen bakkan waa xale yi lu leen yóbbu ñetti xale yooyu nag seeni at mu ngi toll ci ñeent ba juróomi at kenn ki di wee ci turam ñaa kacca des BD Diop ak Mmar fi mu ne ubbi nañ ci ab lanket moo tax ma ne jàngoro ji dal mi moo gën a graw corona la wax ocritis ak biib defati nañu seeni manin ndax ab bu doon yëggu ca drogue diir foofu ca waagu ñaay muy drogue boobu ñu naan cocaïne lañu daal di daane waaw góore waay ba fi mu ne teg nañu loxo chef de gang ba gaa yi nag nee ñu ab information la ñu jot bu di xamal yëngu-yëngu gang boobu benn waay bi nga xam ne jarbaatam ci gang ba la doon fréquenté daan fa muqi cocaïne defoon overdose bay waaja dee moo dal di dénoncé gang ba dealer yi nee ñu ci seen kër famille la ñu defoon siège ba ab R plus 2 teg ci ay ay ponkal di ko garde ñenn ñi di fa jaar di muqi yeneen appartement yi ñu def koy dépôt li gën a doy waar nag mooy yenn dëkkandoo yi xamoon nañu yëf yi waaye daawuñu ko dénoncé ndax gang bi ci boppam dañu leen doon bu xaalis ñu ne pat di leen nëbbal dil yi <laughs> ma ne réew mi neexul la defar moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca waxi naan nimzaad romb na doy waar ab jaaykatu parfum daal moo fa doon sàkkatoo jaay parfum ndekete ci biir jaay parfum ga keese da ci ñooxi yamba ko moom daal kees yi parfum yi lay tee ndekete ci biir kees yi daf ciy sol yamba ba mu fees di ko placé gars yi ndànk-ndànk fi mu ne nag teg nañ ko loxo <laughs> ma ne sama gars yi dañoo xereñ de plan boo leen lal dinañ ko lalli waaye jaaraamaa suñu force de défense de sécurité yi liggéey bi am na solo drogue baaxul day tasum réew mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz